li waral fraude bi am ñun dañu am ministère am tutelle on est des élèveurs nan la l'administration sénégalaise le sous-préfet di recenser ci carte d'identité pas carte professionnelle bu fekkoon dañu structurer suñu liggéey bi organiser ko kon problème bii du am mais dañu bàyyi en rade maanaam l'élevage suivre ko parce que gars yi wane nañ ne amuñu carte professionnelle donc mënuñu identifier kii mooy éleveur ou bien kii du éleveur déjà nit amul droit ñëw fekk nit ki ne ko bokkoo ci donc li ñu waroon euh, régler suñu problème mooy fii am na un agent du ministère de l'élevage un vétérinaire est là donc ku ci nekk waroon na mën a am éleveur am laa bu boobaa nañu recensé xam ñaata carte ñoo fi am. bu waa jaxasoo du am donc procédure bii état war na ko rus a valider dañuy waxante dëgg lii bu amee rek bon cher citoyen donc na ngeen gëm ne on a une administration ki est face à la mort. parce que tamit mënoo taxaw en tant que autorité nga ne da ngay suivre ay élection yow xamoo ni ñëw ba ci biir fora bi toog naan da ngay enregistré nit ñi te yow looy laaj carte d'identité amoo preuve sa bureau nga jóge munoo xam kii ci la bokk kii bokku ci doo juge donc dafa am pièce bu waroon identifier ni kii fii la bokk hmm. l'administration écrit donc suñu ministère tutelle il faudra que ñu revoir affaire bi beneen point bi mooy hmm. fora xaalis bi fiy dugg ñan ñoo ko fiy dugal c'est les bouchers boucher yi dañu bokk ci gestion fora bi bu fi ay milliards duggee boucher moo ko fi dugal donc boucher yi aussi dañu am droit de regard bokk ci yëf yi donte yéen a koy téye parce que ñun dañuy xeex li ñuy wax vol de bétail bii boobu noonu dañuy xeex abattage clandestin li taax nag ñu ci am ay obstacle dinaa leen ko expliquer fora bi fii gis ngeen abattage clandestin bi ni mu fi mel ENCO mi fi. teg miiram boobu affiche am boobu ñu ngi koy ñaan yàlla mu jëleel ñu ko fii te usine aliment de bétail yi ñëw taf fi seen logo parce que moom produit bi muy jaay daral bi consommé wu ko moom jaayul le fu bouché beneen problème bi mooy camp bi fi ne mais chaque tabaski tamxarit ak chaque korité ñooy oowaay yëmbal ak ñeneen ñi ñoo fay def abattage clandestin ñuy fayeku nag bu nekk 5000 te da ngay yaakaar ne boucher yi nekk fora la fekk boucher yi nekk fora comprendre nga mhm. donc affaire bi ñoom dañuy encaisser xaalis ci abattage clandestin bi te mu ngi jural nit ñi feebar parce que kuy jógee Tëngéej di jàll nii bëgg a dem Dakar boo rombee fora bi xet googu lay dal xam nga ne baaxul ci poumon saleté boobu ba pare nag li ci gën a dangereux à état UCG mu ngi ñuy sonal ci wàllu abattage clandestin bi parce que moo leen di couvrir parce que tout ce qu'on abat clandestinement yaa ngi may dégg mbax yi moom moo koy rabas ki yóbbu. kon UCG est une complice dans le cadre de l'abattage clandestin te kenn wératul donc état bi war nañu jàppale moo tax ñu bind suñu le président Idrissa Seck président conseil économique et social environnemental monsieur le président audience bi ñu la demandé pour toog def ay assise waxtaan dañ lay ñaan nga diligentel ñu ko nga may ñu ko ça fait que problème yi yëpp ñu mën ko teg nga dégluñu ku ci nekk boobu waa di ngeen mën a bind état bi xool nan lay defaree mbiri léegi nag ñi nga xam dañu téye xaalis bi fii gars yi fii dafa am lu ñu wax dafa am lu ñu wax dañ na xaalis bi léegi nañu ubbi benn compte mu fay dem ñoom ñuy téye kayit ñee di téye kayit ñoo xam ne ci compte bi ba ñu defar seen bureau ba teg lépp ñu doon wax mën a laal xaalis bi mais xaalis bi moom ko saaseeg yooyu ak yi fii daw bon vraiment war nañ toog préfet fexe ñoom ñëpp ñu toog ñu indi seen i carte ñu indi seen carte ñu ubbi compte lépp lu ñu kun parti bu nekk indi nit ni ñu collecté ñu téye dem yóbbu ko ci compte bi dugal ko fa buñ ko fa dugalee léegi ku nekk yor sa këyit wane versement bi wan ko say say militant ba keroog ñuy defar carte professionnelle yi ñu xam ne acteurs yi ñii ñooy kii ñu mën a dem ñu mën a dem ci ay élection yu transparent parce que élection organisation professionnel la te ñun en tant qu'acteur en tant qu'organisation socio-professionnelle mm. en tant que membre cadre concertation du ministère de l'élevage mm. bu ñu seetaanee lii gàcce la si ñun du ay pièces carte d'identité ñooy wotee mm. parce que carte d'identité bi ñu sax profession te acteur la donc suñu métier bi vraiment ah jàpp ci koi autorité ah monsieur le président Idrissa Seck jàpp ci waaye oo ñu nga ñëw jàppale ñu ndax affaire bi daal quoi